من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكتي على جمود سيزن يرغو أحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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

ëpp na njëgam juróomi junni ngir faj sa mbir waduha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou cissé mara waa góor allahumma salli afdal nasaluka ya man huwa allahu alladi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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

فرمسي وقتها ما وخلي كربم يوم خمول نختن خم بخي فدم تصودمي بنب يو سجنغر لما ندون نغا كوخ كل كوخ سمبير نجوخ لمبير مري ندم كنب بمبير دو أمي مبير جيجين جيلي ما وخلا تايلي مسل ci góor gu bon goo xam ne ni jigéen jilee ma wax la tey lay musal ci góor gu bon goo xam ne ni day def biyal di aar jigéen duñ ko siif wuti ko yow jigéen kon dun la siif gàllaaja ngi di aar jigéen ba dun ko siif wuti ko yow kon la siif kiir laayu kër am na fa yow mi yor sa kër dana la aar ci mépp ndog buy gaar sa kër kiir kër am na fa yow mu yor sa kër dana la aar ci mépp ndog buy gaar sa kër rabak ji néeg lum mën a doon tey sonle gàllaaja ngi gu baax ci kër di terle rabak ji néeg lum mën a doon tey sonle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 ñaari anam moom la mane di fóot sa xol leeral sa xel mum mën a ne kii sa ngi ñaari anam mom la mane di fóot sa xol leeral sa xel mum mën a ne bayree ngi bu baax ci njaay tey si yiiwal ki bëgg siiw mbiram ya dox ci Sénégal bayree ngi nii ci njaay tey si yiiwal ki bëgg siiw mbiram ya ci Sénégal kitaab wadduha bu leen ko fàtte téere la am na njariñ di yokkute kitaabu wadduha bu ko fàtte téere la am na njariñ di yokkute bul fàtte kat cuuraayatuha tey dalay fajal sa wopp ji gisul moo koy wéral ulfaatekat cuuraayatuhaa day dalay fajal tawabbuji docteur gisul moo koy wéral ulfaatekat cuuraayatuhaa dalay fajal tawabbuji docteur gisul moo koy wéral oto ngi ni kat kat la yow bu fakkane te soxla yow moo ko soxal fu mu mën a ne oto ngi ni kat kat la yow bu fakkane sa soxla yow moo ko soxal fu mu mën a ne bu def commande man dine mu andi ko taxi ngi nii bu gaaw te wóor yow jàpp ko ku def commande foo man dine mu andi ko taxi ngi nii bu gaaw te wóor yow jàpp ko saa boo jugee yow nang ko woo mu lay fajal sa soxla yow mi bëgg dem te ko teral saa boo jugee yow na ko woo fajal sa soxla yow mi bëgg a dem dee ko teral ma wax la kër maara borom pharmacie ba muy géejawaay ca boori lii sa ba ma waxla la kër maara borom pharmacie ba muy géejawaay ca boori lii sa ba ca lii sa saydi limaamu laahi foofaay këram ca fekk baay billahi jalisa sayidina limaamullahi foofaay këram ca fekk baay billahi pharmacie wadduhaa ngi ko yow yii ci ay garab am yow pharmacie ngi ni jàpp ko yow yii ma filim ci ay garab am na fa yow ma julli nag ci sayidina muhammadu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 في الأرض ولا في السماء وهو السميع حليم بسم الله السافي بسم الله كافي بسم الله معافي ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك سبحانك سبحانك لا حلم لنا إلا ما علمتنا الحمد لله رب العالمين ñaanoon nañ yàlla tooge yéen jotaay seen émission Wadduha yàlla may nu nu tooge yéen jotaay seen émission Wadduha tey di mercredi di 11 mai di 11 mai 2016 fa tabarakallah noonu la ñu koy ñaanee tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttal na nu nu àggaleeg alhamdulilahi rabbil alamin ka xaadatihi rek nanu faral di koy ñaanee ñaan yàlla yàlla bu asakaay wax génn ci émission bii di Wadduha fa tabarakallah taamoo noonu saa yu nuy tàmbali nu ne ñaan fépp foo xam ne kàddu àgg na fa nu jàng fatihatul kitaab jàng lan jàppandi si xul wallaahu ahad gannaaw bi ni ko xat yàlla sallallahu alayhi def ko xat bépp néew jullit boo xam ne ma nga barsàq ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom ñaan yàlla beesal njëggal sa ñoom ñaan yàlla tamit leeral seen gannaaw noonu la ñuy nuyoo sunuy kilifay diine ndax alxulama warasatul anbiya di leen màggal di leen ñaanal yàlla yàlla yokk guddal seen fan lool fa tabarakallah yàlla yokk wéral seeni cër di nuyu tey siyaara sëriñu daara yi imaamu jàkka yi jumaa yi fépp foo xam ne jottalikat ma nga fa ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxoon balliqu anni walaw bi aaya fépp fu doomu adama nekk tey mottal mottali mission sallallahu alayhi wa sallam nu ngi lay jox cër di lay ñaanal di sàkku si yow ñaan fa tabarakallah di seet way tawat yëpp nanuy aadawoo di koy wax di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy saafi ñoom ñëpp yàlla yónnee leen sifa fa tabarakalaa di ñaan yàlla woyofal yaram yi moo xam ñi sooxaale la wala ñu ne si hôpitaux yi ñëpp fa tabarakalaa nuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy saafi yàlla yónnee leen sifa di nuyu ñi nga xam ne bi nattu def leen a dal ba nu nekk si prison yi di ñaan yàlla yónnee leen ixlaas te sóoraale leen ak lépp loo xam ne mën na leen fay delloo fa tabarakalaa mbokki gardien do doon ñoo xam ne ñuy wettali ko waddu xàllan wettali ko boo xam ne bu yàgg la ñoom it nu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne mooy xaafis yàlla na leen yàlla wattu la ni garde di nuyu bu baax tey siyaara kër gii di RND radio municipal de Dakar fa tabarakallah di jiital si nuyoo bi Doudou Coulibaly di ko ñaanal yàlla yokk ko wér yàlla yokk koy kàttanal ba macha allah lii mu yéene si rajo municipal de Dakar mu man koy matal di nuyu bu baax sunu technicien bu màgg bi nga xam ne allar ba bu nekk moom la ni jàkkaarool muy alxaji Alioune Jonn di koy ñaanal yàlla yokk ko wér ak tawfiix yéeg nañ bu baax macha allah saa yu empêchement amee yéeg nañ coono yi muy am ngir ngeen man di wéttali ko seen émission Wadduha waaye tamit yéeg nañ. passeefu gi ma am ngir ngeen man di am seen rediffusion kon fa tabarakallah alxaj yun si sama kaddu képp kuy soppee Wadduha rek ak auditrice ñëpp nu ngi lay eh, delo njukkal te di lay ñaanal fa tabarakallah nu ngi ñaanal eh, ñëpp fa tabarakallah nan nu yag di koy waxe yalla yombalal ñëpp te dekk ti bak sangu yalla fa tabarakallah faj aajo yëpp ku si nek lay seyé nek lay se ité su lu yalla gërëm yalla man lay katen ba lolu man di mat euh, procès bu nit am te yakarsai say yiw yaakaar sa yokkute yakar sa lu ko sutural adina ak alakhira nu ngi ñaan yalla fa tabarak laa jàppandalal ko lolu nu ngi nuyu bu baax tay siyaray njabotu Wadduha fa tabarak la njabotu Wadduha sunu ko waxe Wadduha du Mara rek Eh, di jiital kër ga nuyoo bi nu teg ko ci loxooy Cheikh Ahmed Tidiane Gajaga fa tabarakallah mu séddale nu ko sëñ Babacar Cissé fa tabarakallah Omar Diallo sëriñ Xaadim Ndiaye fa tabarakallah Modou Guèye eh, Babacar Gajaga ñoom ñëpp fa tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di nuyu bu baax tey siyaara it sunu Jigen di aja Aram jay di koy masaw si ndogalu yalla bobu nga xamne dal na sa kawam te moy magam bu mu bokal ben wayjur bu deddu aja Aram jay kon si sama kaddu soppay Wadduha yëpp auditeur ak auditrice hay yeb nu ngi lay jale sa mag bobu la deddu di ñaan yalla mu deddo la jamm di ñaan yalla bessel yermane sa yalla barkel la mu fi baye si njabot te nga yag lol lol lol lol, di diko yone hadiya fa tabarakalaa kep kuy wadu ha rek ajaaram yegal ne mu ngi bok ak yow tis bobu nga xamne ndogolu yalla la fa tabarakalaa nu ngi lay jale bu bax di jale tamit sama goro di mohammed job ak kep ko xamne mu ngi si famille Modou ndjay la bok fa tabarakalaa nu ngi lay siyaara di lay jaale di lay ñaanal fa la di nuyu bu baax tey siyaara sunu waajur yi nga xam ne noo nekk point un di alxaji seeni Sagna ak Adja Fatou Ndiaye di leen masawu lu bëree bëri si coonaay yu téléphone yeeg coonaay tegtal nit ñi nu ñëw sa barab ba ak coonaay seen téléphone heure yi mi sonné yëpp nu ngi leen di masawu di leen jéggalu si dérangement yooyu di la ñaanal yàlla fa tabarakallah yàlla yokk guddal seen fan lool fa tabarakallah waaye tamit yàlla yokk wéral seen i cër di nuyu bu baax sunu njaboot yi nekk géejewaay fa tabarakallah sunu mag soxna Astu Cissé nu ngi koy nuyu di koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko wér niki noonu sunu doom soxna Ndey Mama Ndiaye yaayu Mohamed ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal. فتبارك الله سن ميسيون ودو حتى ني في سي ار ان دي راديو مونسيبال دو داكار دي نوي بو باخ تاي سياره تاي ندوكل ا الحاج عبد الله تياو لاي فتبارك الله بي نيك سي بوب نجابوتو مام الامام المهدي لاي سي خيو خيو بو ماغ بيغا خامن بي موم لا نونو جوغي موي اجيبو دوخ يالاي فتبارك الله يالا سي دوغالام nu mën a wax ne seen njaboot lan ndax macha allah defe naa dinay néew lool nu xëy ba jant sa tudd nu tudd Seydina Limaamu Laay ndax na ma koy yàgg di waxee <coughs> yàlla dogal ba nu amee ndigal si sunu kilifa way wayjur géejawaay la nu wàcc ba nu wàccee géejawaay si boor yi lycée Seydina Limaamu Laay la nu wàcc nanu fa wàcce woon ba léegi it fa tabaarak laa noonu la nu fa nekkee kon fa tabarakallah nu ngi ndokkeel bu baax alxaaji abdullahi thiaw laay di koy ñaanal yàlla yokk ko wér yàlla yokk guddal fanam si aji boobu bi nga xam ne bii moom lan passé fa tabarakallah nañ ko waxee rek 2003 ba léegi foo xam ne saa yoo xëyee da nga barkeelu si waay juróom eh, jaadu na macha allah nu ndokkeel bu baax a baax a baax eh, alxaaji abdullahi thiaw laay fa di fàttali ñëpp it boutique Wadduha eh, fa tabarakalaa nañ leen ko doon waxee si mbaaxu yàlla yàlla def na tàmbali na eh, ni ni leen ko waxee woon it fa tabarakalaa daraahimu kiis yàlla def na jàppandi na fa muy yoon bu rëy rëy rëy boo xam ne yéene nañ ko ñëpp képp koo xam ne itteewoo nga ko fa tabarakalaa soo fa demee si boutique ba dana jàppandi ni nga xamee ne bii nii lay mën a jàppandee Tëngéej ni lay mën a jàppandee Point E fa tabaraka yokkal nañ leen Seyid Gàllaaju Sàcc mu ngi si boutique ba moom it jàppandi na fa tabaraka laa yokkal nañ la Seyid lu saafara bët nga xam ne bari na sayaatin yoo xam ne bi macha allah mën nañ di jàpp bët fa tabaraka laa doon yoon bu am solo boo xam ne bii. ku dajeeg moom di koy moo lépp loo xam ne bi tawat la si xeetu bët wala metti si xeetu bët si kattanu yàlla yàlla mën na la see defal safara ni ñu leen si yokkalee luy fal yaram moom it mm, loo xam ne bi lépp luy tawat bu ñuul te ni ma ko yàgg di waxee te mooy yaram boo xam ne e, boroom dana yëg ne moom wérul te mën nañ koy seet ne ko gisuñu si yow dara nanu koy waxee feebar yi bari feebar yoo xam ne bii feebar yu ñuul lay doon feebar yoo xam ne suy jant di so rek feebar ba di yéeg foto fa tabarakalaa ak xeetu tawat bu ñuul bu mën a doon rek si mbaaxu yàlla euh, fàggul nañ leen ko si boutique Wadduha nga xam ne képp ku ko yittewoo rek fa tabarakalaa soo fa demee di nga koy mën a am mooy xam géejawaay la bi nga xam ne mooy dëkkuwaay bi moo xam Point E la moo xam Tëngéej moo xam Mbuur nu ngi nuyu bu baax tey siyaare sunu jigéen di madam nya bi nga xam ne moo nekk Mbour di ko ñaanal yàlla yokk ko wér yàlla yokk koy tawfiix niki noonu it ni ngeen ko déggee léegi kitaabu eh, cuuraay bi nga xam ne macha allah ni ma koy waxee ne cuuraayu anti séeréer la fa tabarakalaa moo xam kiis kiis boo xam ne ni ko mbokk moom waxe léegi Abdoulahi Guèye si taalif bi nekk si la boo xam ne si ñaari côté la ma ne luy fóot xol luy fóot xel ak loo xam ne day tax xeleel di am dal te du fàtte yooyu yëpp mu ngi si pharmacie Wadduha na ngeen sa mën a amee gàllaaju njaboot te mooy loo xam ne bii macha allah euh, day aar xelal yi ba nga xam ne du ñuy man di lenn du leen mën a yàq na ngeen sa mën a amee luy toj liggéey. toccal liggéey fa tabarakalaa moom it mu ngi si boutique bi mu ngi si pharmacie Wadduha ni ngeen sa mën a amee bayre moom it jàppandi na fa ni ngeen fa mën a amee tamit eh, luy faxas cat yooyu yëpp fa tabarakalaa eh, jàppandi na fa ni ngeen fa mën a amee tamit gàllaaju kër te niñ koy wax kër macha allah dafay jar jar eh, aar ba nga xam ne dara lu ñuul du fay na ngeen fa mën a amee tamit gàllaaju oto yooyu fa la ak yeneen yu nu fàtte xaj na yooyu yëpp si kàttanu mbaaxu yàlla yàlla kàttanal na nu bay yëpp macha allah man ngeen koy am am bu jàppandi si boutique bu bi nekk Géejawaay waaye si point 1 wante si Tëngéej waaye Mbuur fa tabaraka la sunu yàlla kàttanale fan yu néew incha allah yàlla mën na nuy dimbale dana jàppandi. frotté boo xam ne day baax si lépp loo xam ne bi feebaru der la si kàttanu yàlla sunu yàlla dimbale bu nu demee fii ak weer buy dee yéene na si kattanu yàlla yàlla kàttanal nu ba loolu it mën a mat ngeen man koy am si farmasi Wadduha yi fa tabaarakalaay yooyu ay fàttali la woon rek ngir mbokk yi nga xam ne nu ngi déglu noo xam ne lu jàppandi it si farmasi bi di sant nuyu bu baax tamit sunu. mag di sunu xarit alxaaji xaadim rasul Guèye fa tabarakallah si wadduha point org ma nu ngi koy ndokkeel lu bëree bëree bëri fa tabarakallah di koy ñaanal <coughs> képp koo xam ne soppe la si wadduha mu ngi koy ñaanal macha allah di sant wëllëre yi soppe yi xarit yi fa tabarakallah soxna aram bi nu mujjee waxtaan rek mu ngi doon wax nu mu bëgg pour auditeurs rek auditrices yi gën a booloo di demlanteeg dikkalante ma ne ko am ngeen si sama ndigal ndax Wadduha du lu maaraar rek moom fa tabarka la am ngeen si sama ndigal moo xam association lay doon moo xam fondation bu mu si man di doon rek nu ngi ñaan yàlla defal def si barke Duha yàlla def si barke Duha ndax ni nu ko waxee ay jamaha te macha téeméeri nit fu nu dajee rek lépp lu nu sangu nu daan ko mën na yomb moo xam téeméer moo xam junni moo xam ba million personne ba yàllaay xam lu mu si mën a doon rek mbooloo <clears throat> ni nu koy waxee mbooloo yërmande la rawatina mbooloo boo xam ne bii seen pas-pas dafa dëgër rawatina mbooloo boo xam ne bii seen xol dafa set rawatina muy mbooloo boo xam ne bii ñuy am yërmande lan rawatina muy doon mbooloo moo xam ne ñuy yéeneente jàmm lan kon fa tabarakallah nu ngi yëgal ñëpp ne jox nañ diggal soxna Aram Ndiaye ak képp koo xam ne am na yéene jàppale ko si mébét boobu ba nu mën a taxawal seen bureau man fa tabarakallah xam na membre rek lay mën di doon ndax yéen bi xaw nay diis ci li ma yor rek moo tax teg ci leneen dinay xaw a doy waaye dinañ leen jox ndigal fa laa ngeen waxtaan bu ko defee bu ngeen paree taxawal bureau boo xam ne yéen a xam nu ngeen koy tuddee mais day doon njabootu Wadduha su ko defee fa tabarakalaa mbooloo ma sa nekk yëpp doon benn mbooloo moo xam ne dañuy demlante di dikkalante doon mbooloo boo xam ne bii it macha allah eh, dañuy yëgante si lépp fa tabarakalaa loolaay yéen bi nga xam ne bi soxna aram waxoon na ma ko am si yéene lool tamit fa tabarakallah nu am sa mbégte lool it di ñaan yàlla defal ko si lu kawe njortam du ñàkk xam naa du ñàkk dina jaar si yoon bi bu nu ubbi antenne bi sunu demee ba taxawal seen bureau du ñàkk danañ leen dalal fii si Wadduha si rajo municipal de Dakar bu ko defee nu waxtaan nan lan bëgg taxawalee seen lan bëgg a taxawalee seen mbooloo boobu waaye nu ngi siy am mbégte bu baax fa tabarak la ndax eh, xame bu nekk rek yokk la fa tabarak la rawatina yi ñoo xam ne seen yéene lépp mooy lu dimbale doomu aadama luy tax nit ñi mucc luy tax nit ñi yokk ba si Wadduha solidarité boobu nga xam ne bii sunu yàlla kàttanale ni ne ko defee woon daaw su nu demee ba ñaareelu semaine si weeru koor bi yéene nañ jàpp benn bés boo xam ne dañ koy def journée solidarité nga xam ne macha allah lépp lu fa doomu aadama indi si xéwal dinañ seet jaamu yàlla yi nga xamee ne bii itteewoon nañ ko nu seet nu nu sa mën jotee jot boo xam ne day ànd ak sutura loolu lépp nag euh, gannaaw ndimbalu yàlla. doomu adama yi rek fa tabaraka la ndax sunu borom lépp si doomu aadama yi la koy jaarale eh, muy loo xam ne bii bu si kenn xeeb dara fa tabaraka la ndax ki ne rus na barkeelu si Wadduha solidarité rus naa sa barkeelu 500 na ko wóor na 500 bu fukk defee joxe 500 5000 lay doon te na ko wóor na it du ñàkk am na si koo xam ne 5000 francs mën na koo yaxanal. mën naa jóg ak daanoog moom ñetti fan yoo xam ne bii fa tabarakala danay mën na doon dépense kon muy loo xam ne suñu demee ba taxawal ko rek képp bu kenn xeeb dara dara dara fa tabarakala ñanu ko defee woon daaw amoon si ay ndimbal si suukar amoon ko si ceeb ak si koddaay ak si xaalis lu ko raw lan ñaanat ndax yàlla rek lanu koy ñaan nanu bëggee jaamu yàlla si doomu aadama yi woo si sunuy soppeek sunuy xarit ak sunuy wóllëre ñu ñëw ànd suñu ñu ñëpp jàmm si yàlla fa tabarakalaa doon loo xam ne bii du yéene puukare du yéene gis leen ma du yéene lenn yéene la loo xam ne bii sunu borom la mu gën a bëgg mooy doomu aadama te ka sa new ku ne sa kaw duy pexe la fa bàyyi waaye kenn si suuf tamit du doye de ko fa ba kon fa tabarakalaa nu <clears throat> nanu yàgg di koy waxee nan gën di jàmm yàlla si doomu aadama yi nan gën di jàmm yàlla si néew doole yi lan tanaalul birra xata tunfiqu bi ma tuxibu te nanu koy waxee joxe dafa am solo bari na loo xam ne bi dana koy fànq mooy joxe seet la la yàlla wërsëgal nga génn sa loo jaamoo yàlla te yàlla rek rek rek rek rek tax fa tabaarakala loolu nu ngi koy fàttaliwaat ñëpp kon xam naa Alxaaji Aliyun <coughs> man ngay am loonu yëkkatil tuuti rek bu ko defee nu dikk ak yéen seen émission ha si RND radio municipal de Dakar sunu demee ba 23h danan ubbi wat yoon wi nu wettali konti ak yéen di nuyu soxna soppe yëpp nag fa tabaarakala euh, bu nu nooy soppe Habib Mbaye alhaji Modou. soxnaa mi Kolle Mati Diop Ramatoulaye Diop ak képp koo xam ne bii soppe nga tuddul la Abdoulahi Mbeng numéro un di bég lool si gisee bi ma gis ak moom tey ak numéro deux ak numéro trois ñëpp nu ngi leen di nuyu yaayu Wadduha nuyu koy nuyu bu baax di koy siyaara suñu wëllëre soxna Serigne Kalidou Gueye doon wëllëre di soppe di xarit fa tabarakallah nu ngi ko ñaanal yàlla yokk ko wér ak tawfiix di ñaan mu jotal na sunu nuyoo si sunu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

amna point 1 wooteel ci 77 571 59 77 77 571 59 77 mbokk yi wa dua njëriñam upp na njëgam juromi junni ngir faj sa mbir Wadduha yalla mo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou cissé mara wa gol allahumma salli afdal salatina ala أسعدي مكتوب يا من قل سيدنا محمد يا من قل يا من من محمد رسول الله su la yàlla mayee baat bu neex. jërëjëf alxaji Fallou Cissé wante jërëjëf alxaji Bara Diouf waaye jërëjëf sëñ Abdoulahi Guèye wante jërëjëf sunu doom sëñ Mansour Cissé. ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñëpp di leen gërëm si macha allah gunge bii nga xam ne moom la ñuy gunge si seen émission Wadduha fa tabarak laa tey gannaaw naaf naafi la taam woon nañ di leen koy baaxe <coughs> di fàttaliwaat ñëpp ne la yi ni fiy wax yëpp ku dem si wadduha point org da ko fa mën a fekk ni ngeen mën a amee asmaul laahil husna nga xam ne bii. mu ngi si kitaabu Wadduha moom it man ngeen ko fekk si wadduha point org même man ngeen ko tiire nga xam ne lu ëpp de la ndax rod na si xadis ne képp koo xam ne wattu na ko sa yaram xaraam na safara mooy tax yàgg naa di wax ne loo xam ne wattu ga danga say am mucc si safara tegtal la si ne kon lépp loo sa ñaan si aajo yàlla dana la ko fajal mo am naafila boo xam ñu bëri dan may woo di may koy ñaan ngir ma leen koy baaxewaat moo tax ma ne dinaa ko dinaa ko waxar si émission bi ngir ñi nga xam ne nañ ko te mu am lu sa desoon nu man mu mën a mat sa ñoom ñi nga xam ne gan lan tamit nu man koy barkeeloo te mooy naafila boo xam ne képp koo da nga yéene tukki jóge si barab dem si barab boo ne suba ngay dem moom nga koy def muy ñaari ràkk rakk bu njëkk ba gannaaw fatiha da ngay def wa yanqalibu ila ahlihi masruran wa yanqalibu ila ahlihi masruran moom ngay def téeméer rakk ñaareel bi gannaaw fatiha nga def fa wala sawfa ko rabbuka fatarda nga xam ne macha allah nee naa barkeb Wadduha bi nga xam ne moom lañ tuddee suñu émission loola lañu say ut te mooy wala al aaxiratu xayrun laka mina uulaa wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa fa tabarakallah wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa boobu moom ngay def téeméeri yoon si ràkk bi gannaaw fatiha boo sëlmalee wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa danga koy defaat junni wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa ba am mil macha allah. nan koy waxee rek e, ne ñaan ñaanin dafa am fa la yàgg naa koy wax ne su ma soxla dara si alxaaji aliyun bu ma ñëwee woon ko fulaak fayda ak ne ko loolu nga yor laa soxla de amaana waxuma mu jox ma la may jox waaye mën nay demee neneen waaye toroxlu teggin ak teewlu gu mat sëkk yoon boo say mën di jël rek ak am yaxin lool lool lool lool lool ngay ñaan ne du koy tas yaakaar te mooy yu déggal jaam yi ne nan koy ñaan déglu yi sunu ko ñaanee dana nu may <coughs> kon képp kuy ñaan rekk na pas-pas ba dëgër pas-pas lu am am solo la ndax pas-pas bu dëgërul wala pas-pas fu mu amut laaj ko ki nga xam ne yéen doon nay ñaw ba ngoon te fasul bu roccee rek macha allah dafa fekk dara. wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda nga def ko 1000 soo paree yaa jamilu nga def ko 66 yaa jamilu 1000 bi it mën nga def lim bu ndaw ba mooy 100 wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda téeméer boo paree yaa jamilu nga def ko 66 boo paree turu yàlla yi yaa xaniyu yaa moxni yaa waxaabu nga def ko 313 xaniyu moxni waxaab nga def ko 313 ñaan yàlla lii nga dégmal te mooy la nga ñaan yàlla mu doon tukki boo xam ne dangay ngay tàggatoog jàmm waaye dangay ngay walla seeg wala saw fa yuxtika rabbuka fa tarda fa tabaraka laa defe naa du yoon bu ndaw tey e, day baax lool nit suy tukki rawatina tukki boo xam ne tukki ut la mu ñaan yàlla ba du yóbbaale cat di yobale galankor waye mu ñaan yalla ba cat wala galankor du ko fa téru lolo naa ne lolu lu lu ëpp xeeb la fa tabarakallah moy tax bo gisaan mag ñi lepp rek ay tegtal daanan tektal la ñaare boy tukki la ngay mujjé xewlu soy genn sa kër tektal ya ngay def la ngay saraxé ngir nga xamné lenn du la gunge wala lenn du la gatandu la nga xamee ne biit macha allah bés yi nga xamee ne biit moom ngay tàggatoo nga xam ne su doon suñ jamono yi da ngay war di jël avion xaj na moytu loola man nay jafe waaye si misaal bu dee yaa nga dëkk Louga am bés ba nga xam ne moom ngay tàggatoo ak sa njaboot ñëw fii Dakar ba bés ba nga xamee ne bii tàggatoo sa refitul bu jotee nga xam ne da ngay dem rek fa tabarak la yooyu yëpp ay tegtal la yoo xam ne ëpp na di xeet bés yi nga xam ne boo ko tàggoo sa kër macha allah lay euh, dangal tàggatoo ba day nekk yiw tey lenn du la gunge ndax ñaari danga di gis eh, alxaaji koo xam ne bii eh, dem na yóbbaale loo xam ne bii bu àggee rek macha allah day mel ni fa mu wàccee lañu ko dugalee si dara eh, caabi law ko dara dara dara dara dara du ko fa mën a doxal te yooyu yëpp macha allah gàllankoor mën na koy waral walla bañ a gëm dara walla it macha allah euh, noon jiitu la yooyu yëpp macha allah mën nay waral yu mel noonu mooy tax ëpp na di xeeb ëpp na di xeeb dinaa koy wax lu bëree bëree bari ne jamono ñaan rekk fi des fa tabarak la ndax lu ne nga fiit waaye mën nga ne tey la jafe-jafe ëpp kon tegtal la si ne kay kondir jamono mooy jalla jalaaluhu day bëgg toujours jaam di koy yëg di ko yegg si nekk si wan ko ne ko mooy boroom jamono si wan ko ne ko it moom mooy yàlla fa tabaraka la mooy tax loolu day am solo gannaaw naafila boobu lii danañ koy baaxe ñi nga xam mbokk yëpp bunt la boo xam ne day yombal xéewal danay tax nit fatxu yomb ko te mooy ubbeeku te baatu ubbeeku na ma ko doon waxee contraire ba mooy tëju la tëju nag kenn mënu si def dara danaa koy wax lu bëree bëri si ne ndab wala bouteille wala lu mu mën a doon su tëjoo mënoo saa def lu àgg sa biir lay tax nga mën ko see def nag mooy ubbeeku mooy fat mu mel ni ki appareil walla machine ba nit yor def sa code keneen ku dul moom du saman dara na mu koy mënee mooy mu xam kot ba ba ubbi ko kon fa tabarak laa nu xam ne lépp lu luy jafeñ-jafeñ rek ak jàppandal mën na say ñëw mën na fay mën na say topp lay tax jàppandal ñëw nag mooy ñaan rek fa tabarak laa ànd ak sabab loo gëm sa ndax dinaa koy wax ne ku kuy wax ne dafa tëju te emploi de temps mooy nelaw trois heures du matin wala quatre heures du matin tëdd trois heures wala quatre heures du matin yeewu une midi wala une heure ndekki teg ataaya jëmee seize loolu àndul ak dama tëju fatabarak la loolu yaafus la loolu yaafas la ndax sunu borom du fekk kenn ku jéemul ndab muy def sa yow dara ni ko sunu bàyyi daan waxee yal yàlla yokk leeram alxaaj Ibrahima Sakho nee na ka dàq napp si àddina bi sunu ko indi woon yóbbu ko àllukaañ nee na du nu génneel benn jën lu tax nee na dafa nekkut kon mooy tax nit faaw wat muy sabablu. faawat muy jéem boole ko nag di ñaan eh, ni mbokk ma doon wax rekk tëggkat ba doon mbër ma doon bàkku xam nga mbër yu bari mbër ñaare biy bàkku day bàkku ne maa ko daan maa ko daan waaye moom nu ne mu bàyyi lépp di bàkku ku ne yàcc maa la man <laughs> ku ne yàcc maa la man jooju muy bàkku nag mujj soof tëggkatam bi ne ko man mënatuma mënatuma tëgg ku ne yàcc maa la man ku ne yàcc ñëpp koy man fa la kon it nan di dogg tey sabablu fa la tey sàkku barke ni ma koy waxee lu bëree bari si ne baraana nit tàmbalee lu tuuti tuuti dem ba ñëpp di koy coow te barke rekk tax fa tabarakalaa kon lu nit nekk tey yëngatu rekk na say sàkku barke dinaa koy wax gannaaw ba nga amee say ñaanu kilifa jub jubal lépp loo jàpp nga say jubal sa kem kàttan di say sàkku barke mbir moom mooy yokkute rek rek waaye métti moo mën a nekk te ku la jox avance boo moytul dana xuloo pour nga delloo ko avance am kenn nag mënu la ñaanal ak lu mu mën a doon it nu maytu loolu di moytu àq ndax dinaa koy wax lu bëree bëri ne ñépp nitu yàlla lan waaye nit ak yàlla leneen la te nit ak yàlla xamu fan la ndax sunu boroom fu ne lay def mbiram amaana ngay romb nit sax di koy tuddee neneen nu baal ma ci kàddu ga ñeni wooyee dof fekk te wallaahi ay nitu yàlla lan nuy bàyyi xel loolu lu bare bari di bañ ci tàngal xolu koo gis rekk nga tàngal xolam loolu it nu moytu ko fa tabarak la yoon bi yoon bu baax la si ki nga xam ne day ut fatxu tas bi tan moom lay def 77 77 mooy lan mooy kanzu moom lay bind 77 su paree war a fax naahu makaanan aliyan moom it mu def ko 77 su paree inna haasa la risquna ma lahu min nafaat mu def ko 67 su paree inna fatax naa lakk fatxan mubiinan moom it mu def ko 67 defe naa ku dégg aayaat yi xam ne. xamne lu reey reey reey reey la ci loo xam ne day ubbi doomu aadama tas bi itam 77 wa rafahnahu rafahnaahu li aliyan 77 inna sala risquna ma lahu min nafat 77 inna fatahna laka fatxan mubinan 77 ñeent yi ngay def bu si nekk 77 77 nu ne mooy lan nu ne mooy tolloo 15 soo paree lii ngay def saafara soo mënee am néegu xorondom nga xam ne macha allah secret dañ ne lu làqu la te suñu boroom lu ne rekk nëbb na say baatinam suufu xorondom nga boole ko xorom di koy sangoo sangoo ko juróom-ñaari fan yu toftaloo xaddiyal naa ko ñëpp fa tabarak laa te nu ma koy waxee depuis mission Wadduha di am. saa yu nu toggee lépp lu nu wax nëbbu nu sa virgule ndax yàgg naa di koy wax sunu yéene mooy sunu yéene mooy na ñëpp mucc na ñëpp yokk loolooy sunu yéene fa tabarak laata nu ngi si sant yàlla ndax loo yéene nit ñi rekk noona ngay mel ni ko benn waxkat waxee ne ku si nekk sa melo ren nee na ni nga mer ren ku si nekk ni nga mer ren mooy la nga yéene woon nit ñi daaw wax bu rëy a rëy la nag kon nu seet tey jii di huit di onze mai 2016 képp koo xam ne defan nga si sa xel wala sa xol wala nga yéene si diw keneen ak suufe na la wóor ne walla ak wàññiku wala ak yàqu

luy yàq sëy luy technique jàngoro ki nga xam ne yéeneem loolu rekk la wallaahi wa billaahi wa taalaahi balay bàyyi ko fii ci àdduna la mbugalam di tàmbali te dund doon lu gàtt fa tabarak la loo xam ne kon du lu ko jar dinaa koy wax toujours mais itte boobu nit di am si ne na sakob jóg ma toog su ko amoon si ne naa am li sakob am ah, nu baal ma si tur boobu sax <laughs> du sama bos li alxaaji am man nay am lu ëpp amaana li alxaaji am te macha allah ay xéewal rek la ko yokkal ay waaye na ñëpp essayé lool rek yéen ñëpp jàmm fa la commencé ko si kër yi nañu yàgg di koy waxee na kër yi defaru problème yu bëree bëree bëri si kër yi la bloqué woo ndax dina koy wax ne kër gu mel ni areenu làmb ba macha allah ku si xëy rek da nga sotti ba moytul paano ndox see buntu néeg door a ñemee génn loolu di yiwu si ñoo xam ne dañuy woote woo ne jullit leen na commencé si kër ga di yeneente jàmm si eh, ña bokk sëriñ mooy jëkkër suñu bokk yi waajur fa la bu paree kër ga teg ci liggéeyukaay yi liggéeyukaay yi noonu la mel léegi ku si ne rek yaa ngi jéem di fàdd kane sa kaw ngir nga mën a nekk palaasam su ko defee loolu am na nu muy nu muy demee day mujj dem ba ba fayu si ba fayu si entreprise bi mooy tax mooy tax ngay gis muy bëri lool ñaare entreprise yoo xam ne mu ngi daanu mara day taal yi yéene wunu ko benn entreprise fa barak la mais wax ne yàq garaaw gi mu garaaw rek fa barak la ndax fa tabarak la nanu koy waxee su jàllee liggéeyukaay it fépp foo xam ne bi noonu lay continuer ba macha allah si ñi nga xam ne noo nu jiite moo xam ñi nu jiite si gox yi la moo xam ñi nu jiite suñuy njiitu réew la lu mu mën a dore fa tabarak la eh, ànd beeg yéenente jàmm ak fóot xol yi ak ku si nekk lay cëram nu jox ko ko nan koy waxee toujours rek nay tàmbali nay tàmbali si dëkkuwaay fa tabarak la te loolu doon doon gàllaaj bu rëyee rëyee rëy comme noonu la koy waxee kon yoon boobu it baaxee nañ ko ñépp fa tabarakalaa képp koo xam ne bëgg nga sëy mbir yokk bëgg nga am fatxu te muy lu am solo it yoon bi it nu ngi koy baaxee ñépp képp koo xam ne am nga looy sàkku looy sàkku nga bëgg yàlla defal la si ndam am nga loo déposé it nga bëgg yàlla defal la si ubbeeku sa dossier yàgg na fa nga bëgg nu xoolal la ko lu si mën a doon rekk niñ ko waxee ne boroom jamono ku koy woo rek fa tabarakalaa dana la wuyu te soo ko ñaanee dana la may te mooy léppit fa tabarakalaa ismullahi latif moom ngay def mille cent soixante et un mille cent soixante un boo ko seetee mooy tollu juróom-ñeenti latif Latif 129 pour par 9 de lay 1161 so paree Fatihatul Kitab nga def ko 129 di limu Latif gannaaw istighfar julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ba am 1161 So paree Fatihatul Kitab nga def ko 129 So qul huwallahu ahad suratul ixlaas nga def ko 66 soo paree lafsu yaa allah yaa allah yaa allah nga def ko 700 soo paree nga tëjee ko kam min fiatin xalila xalabat fiatin kasira bi isnillahi wallahu ma sabirin fa tabarakallaa moom nga def ko 313 kam min fiatin xalila xalabat fiatin kasira bi isnillah wallahu ma sabirin nga def ko 313 nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama 92 bi ay siixa nag siixa boo mën a jël rek fa tabarakallah nga def ko si salaatu ala nabi 92 lii yoon la boo xam ne dañ bi ngay da ngay xaccu su dee lu rëy la lool lool lool koy def ñetti ñetti fan bët bu ñetti yoon su lu rëy la lool fa ne su dee la ngay xëccu nag du lu 10 man nga ko def ñetti yoon ci bés bi ñetti yoon ci bés bi bu la soobee boo jullee fajar bu la soobee boo jullee tàkkusaan ba pare ak boo defee gee ba pare fa tabarak la yaa latif moom ngay def 1161 fatihatul kitab 129 ikhlas 66 ya allah 700 kam min fiatin khalila khalabat fiatin kasira bisnillah wala hamaha sabirin nga def ko 313 nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 92 fa tabarakalaa loolu it xaddiyaan nan ko képp koo xam ne yaa ngi def yaa ngi jongante yaa ngi xëccu yaa ngi def concours def nga demande bu yàgg xaddiyaan na la lii si barke doxaanu ñaan yàlla barke lal ko ñëpp fa tabarakalaa ba tey eh, dina leen baaxe benn yoon si allah muhammad tabarakallahu Muhammad lu am solo la ndax lépp si yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sa lay dellu mooy tax macha allah nit ñaan mënul di yéeg mukk te du yéegee si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fa tabarakallah allahu Muhammad dañ ne képp koo xam ne bind nga ko juróom-ñaari yoon. fa tabarakalaa def koy saafara yàlla dina la may fatxu ngay koy def tamit cent cinquante huit nga xam ne mooy xaddu nafsihi bi di koy sikkar allahu mahamed fa tabarakalaa soo seetee cent cinquante huit mooy chiffre bi allahu soixante six Mohamed soo defee limu allah bi nga def ko si fatihatul kitab limu Muhammad nga def ko si salaatul fatiha moom sirrul xaaja lan ko tuddee fa tabarakallah te mooy joni joni lépp loo xam ne itte la boo sa dogoo si kattanu yàlla ak barke Allahu Muhammad wala am lax la ma xuddu yàlla dana la ko defal su soo koy defal nag mii mu Muhammad bu njëkk ba da nga say def sa tur miimu Muhammad du ñaareel bi nga def sa lay sa itte nga jël baatu allah yi yëpp nga def ko si faatixatul kitaab comme bu dee am laxa la ma xudd alifu allah bi nga def benn fatiha miim si Muhammad bu njëkk bi nga def 40 salaatul fatiha laam bu njëkk bi 30 fatiha xaa lonk nga def nga def 8 salaatul fatiha teg si laam 30 fatiha mii mu ñaareel bi 40 salaatul fatiha nga def 5 fatiha deel nga def ñent salaatul fatiha loolu it fa tabarakallah yoon la boo xam ne nu ngi koy xadd yàlla ñëpp fa tabarakallah asif bun barqiya loolu tur la boo xam ne ñi jàng euh, siira si euh, yonent yàlla suleymaan ba nga xamee ne bii ma nga doon yónnee seesu balxiis ne balay ñëw kan ma ma mën a indil sees seesam seesu buur bi am ku ne man mën naa la ko indil balay yàgg waaye waxaala la si indahu xilmun kitaab ka nga xame ne bi yàlla dénk na ko xam-xamu téere kon muy tegtal si ne xam-xam mooy lépp dana ko mën diggante xef ak xippi diggante xef ak xippi dinaa la ko indil dinaa la indil sees boobu nga xam ne bii si misaal waroon na ba Bamako ñëw Dakar diggante capital ak capital nga mën fa jëlee dara si diggante xef ak xippi loolu faddal la fa tabarakalaa loolu late, la it ka ko Asif bun Barqiya moom it allah nu ngi koy xadd yàlla ñëpp képp koo xam ne ba nga protéger sa ba kenn du la lu la dal. wala lu la nit sànni mu deñ xadd yàlla nan la tur boobu nga bind ko juróomi téeméeri yoon ndax na nu koy waxee rek sunu borom ay mayam dafa yaa fa tabaarakalaate ku sunu boroom defaru defar ku sa barkelu rek defaru fa tabaarakalaat soo ko bindee juróomi téeméeri yoon di koy sangoo lépp loo xam ne dañ la ko sànn si xeetu tooke loola day dëpp tey dana nekk kiir laay si yow ba képp ku lay sànni safaan moom moo la koy fàddal fa tabaraka la loolu it nu ngi koy xaddiyal ñëpp alxaaji su fekkee mën nga am tuuti loonu yëkkatil bu ko defee sunu del seenu fàttaliku tuuti si eh, pharmacie Duha bu ko defee fii ak yu néew ngeen mën a bokk ñun émission bi si 88 si 33 889 83 32 نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك خي والدكتي نجوكتي على جمود سيزي نريغو أحمارا سيزي ملين أندلون كرافيل خمسون قاف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

Cissé yàlla yokk la wér yàlla yokk lay tawfiix fa tabarakallah kon alxaaji bu amee ku nekk si yoon bi si 33 889 83 32 nu mën koy jël eh, seen émission boobu Wadduha si RND rajo municipal de Dakar bisimilah. salaamaaleykum salaam sëñ Abibou. yàlla nangu tabarkel premier auditeur. di la masawu coono si bu baax. jërëjëf jërëjëf. waaw maa ngi nuyu Yaram Ndiaye lu bëri. walaay ndeysaan mu ngi lay fay sama kàddu. waaw monsieur auditeur yi Wadduha électricité. ñëpp ngi lay fay sëñ am na sa benn soppe rek bu lay bu lay bu lay nuyu sëriñ Babacar Mbaye. sëñ Babacar Mbaye maa ngi koy fay lu bëri. di ko ñaanal keroog keroog bi ma ñëwee di jël si carafil bi. Mm-hmm. dama dajeex moom foofu géejawaay. ndeysaan ndeysaan. mais bi ma duggee bi ma duggee ci biir daara ji. Mm-hmm. yam yam moom Cheikh Ahmed Tidiane après mu boole ma moom pour mu woon ko bitig bi. ndeysaan dëgg la. mais jotul jotul a gisee xew noonu la bëggee woon a gisee xew. wallaay ndeysaan wallaay xol yi gisee na. yàlla dogal foofu rek lañ gisante ñu ñu waxtaan. xol yi gisee na ndeysaan ndeysaan. mu soppala lool bu ñu. wallaay wallaay wallaay yal na yàlla fay leen yiw amin amin sànq sama xel dafa nekk si moom rek ma yëkkat sama téléphone woo ko. wallaay wallaay loolu mbégte la. waaw waaye mu ne cuuraay jël si na fa cuuraay mais nee na gis na si njëriñ bu. wallaay ndeysaan wallaay wallaay dëgg la dëgg la. nee na nag fan yii na def la tu incha allah ba gisee yow. Eh, fàttali ma turam. waaw sëñ Babacar Mbaye. sëñ Babacar Mbaye. waaw xam naa sax xam naa sax mu ngi déglu. wallaay wallaay sëñ Babacar nu ngi koy siyaare lu bari waaw yaaram moom ñu ngi koy ñu ngi koy jàll ñu ngi koy ñu ngi koy jàll bu baax. wallaay ñëpp nga koy jàll kay. keroog moom bi ma ko waxee automatiquement rek dama sangu dem tënkee dem naa ba àgg si lépp. wallaay ndeysaan loolu bég mbégte la demal nga <laughs> demal nga ñëpp. toujours appel bi ñëw na ba kër gi ñëw na fi. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay. sama sama kër maam dafa xawoon a xat moo tax keroog ànd bu baax. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ñoom Alaaji moo di nuyu yëpp. jërëjëf sëñ Abibu yal na yàlla barkeel la. amiin di fay dellu kóllëre gi nag rek. yal na yàlla nangul nu ko. te barkeel di kontaan bu baax ci yow nag. jërëjëf jërëjëf Mbaye papa Khalifa mbay ma la sax moom bu lay nuyu lu bëri. wallaay wallaay Mbaye maa ngi koy fay. waaw grand film bi fi ñu si moom moom laa ko joxoon. wallaay ndeysaan loolu yow la <laughs> incha allah su yeneen weeree dinañ indi xam sun a yeeg kan sunu malik bi. incha allah dina bu feexee rek ñu ànd ak ñoom. wallaay wallaay wallaay yal na yàlla barkeel. amiin yaa rabbi amiin. jërëjëf sëñ Habib. baax na. barakallah sëñ Habib eh, koy ñaanal yàlla bismillah waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf sëñ bi. Eh, Yaram. Ah, eh, Diouf sama séeréer. Ah, sama séeréer macha allah xam naa da nga wétali fii si RND. alhamdulilah. ana waa yàlla. waa xaar yàlla ñu fi jërëjëf Diouf. mbàyyi nañ ci nu ngi sant nu ngi sant bu baax. nañ leen lool daal. wallaay fi naka mbokki tuuba ñëpp nga fa alhamdulilah alhamdulilah. ñëw nañu keroog lundi. Ah, loolu yiw la Diouf loolu yiw la Diouf mi ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. sëñ Abdoulaye Mbengue mu ngi lay nuyu. Eh, eh. wax na ma ko wax na ma ko wax na ma ko kay wax na ma ko Diouf. ci alhamdulilah nu ngi sant bu baax sëñ Moustapha. alhamdulilah alhamdulilah looy looy looy bàyyi si daara ji tey. dama <laughs> yaa ngi yaa ngi rëdd. <laughs> tey <laughs> baax na baax na rafet na rafet na yàlla nañu ko fekkee déwén. amiin amiin yàlla yokk xéwal yi. yàlla yokk barke bi. amiin amiin may waxtaan ak sëñ Abdoulaye loolu bokk na si nekk Moustapha ko am colère la. alhamdulilah alhamdulilah 2004 ak léegi macha allah yàgg na. waaw waaw yéen a baax itam. wallaay 2004 ba léegi. yàgg na. moom daal di ñaan yàlla yàlla taxawaay. amiin amiin amiin amiin sëñ Moustapha lépp luy seen yàlla jàppale. amiin amiin amiin sëñ wax dëgg yàlla ndimbal nga ci jaam ñi wax dëgg yàlla. jërëjëf sëñ Moustapha. baax na jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha Diouf ba xaar yàlla. bisimilah. Eh, doon kilifa doon ko yàlla dimbale bisimilah. Eh, soxna Aram. soxna Aram waa Kelle Ndiaye Ndiaye Adja. nu ngi si jàmm alhamdulilah. ñàkk la ma fa accès gu rek moo tax jokko bi gëj. <laughs> <laughs> wallaay wallaay Adja waruloo am lu tal lu lu xew lu tal noonu te gisloo ma. wallaay wallaay ñaan yaa ngi ñëw. wallaay wallaay si kattanu borom bi danañ fa accès lu yàggul dara. xam naa lu la tey <laughs> léegi waxtaan ak uh, suñu xaadim. dëgg la kay yaa yi di demee. wallaay wallaay wallaay. loolu comprendre naa la bu baax wallaay wallaay Ndiaye Ndiaye. yàlla dëgëral taxawaay amiin rafet na rafet na. dëgg la nu ngi lay fay. ak soxna Xadijatu sa benn soppe la boo. wallaay wallaay ndeysaan nu ngi leen di fay. ndeysaan <laughs> yàlla sàmm ko. yàlla def ko mag soxna Xadijatu. ndeysaan waaw xale bu tuuti la. ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay. ndaw la am ndeysaan loolu yiw la. lool wax dëgg yàlla. def ko mag wallaay wallaay wallaay. Mm, yal na yàlla dëgëral sa. amiin amiin amiin bëgg kii rek si suñu projet bi ñu dëgmal nii incha allah. ñaan wallaay wallaay mu ngi si sa loxo ak ñëpp ñu si bokk yow xalaat. comme noonu ma ko waxee rek képp ko si am lu mu si yokk. wallaay suñuy bokk naf xalaat bi tam la bokk. <laughs> Eh, wallaay wallaay. Ah, nga dolli bi si ñaan daal. baax na incha allah baax na. Ah, ñun yëpp keroog ni ma dajal si daara ja. dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla nee am na si. wax wax wax nan ma ko wax nan ma ko kay wallaay wallaay. préparé yi rek mën ko joxe. buñ paree prix bi ñu ko mën a joxe pour kenn ku ne mën si barkeel. incha allah incha day dolli si waat rek si biir daal. yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel. waaw ndax kon yàlla dogal na ko te yow yaa tax ñu xame. dëgg la dëgg la dëgg la a lu dëgg la dëgg la. ah ñuy faral di daje. muy lu rafet yoo xamante ne yii dinañ a xamante ñun ñëpp. Uhuh, uhuh. bokk pas-pas di yëkkandoo di dóoral. wallaay wallaay Ndiaye wallaay. suñu borom bëgg comme yàlla boole na xol yi. Uhuh. ñoo xamante ne gisewuñu ñu sax mhm, ñu am mhm. ambition pour gisee mhm, ñu bu ñu defee euh, association bi yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu wallahi da ngeen si am damit si kàttanu borom bi nga ñaanal lu daal da ngeen si am dam ma sha allah am ngeen si sama ndigal ak sama ñaan te sha allah képp ku si jokkali dinaa ko jubanti mu ñëw ci yow alhamdulillah ngeen seet nu ngeen ni taxawalee bureau bi bu ko defee su pare rek ngeen mën a am fi jotaay wax ah, ne ma koy wax ñaan yàlla mu yaatu mën na yaatu ba macha allah ba lépp luy mébét rek mu xaj si. ndax mbooloo lu nu songandoo rek daan ko. alhamdulilah te macha allah mën nay am maar di taalike ñaan ko yàlla benn it bu diis am si kenn sa ñoom. ñëpp mën a bokk jàppale ko ko waa ne ko lu si nit nekk rek ñëpp gunge ko si loolu mbégte lay mbégte lay doon dañ leen si ñaanal bu baax a baax aja aram incha allah ñaan yàlla fi ak koor gi rek ngeen mën a taxawal bureau bi da ngay waxale képp ku si bëgg yéene bokk rek mu joxe sa numéro keneen it ku nekk si beneen gox te bëgg waaw bëgg yor benn liste moom it mën nay dugg. comme ñoom ñëpp xam nañ sama numéro. baax na baax na. ci am décision rek nga woo ma comme ça ñu enregistré la. baax na incha allah baax na. baax na benn assemblée générale. Mhm, mhm. comme ça ñun ñëpp ñu bokk daje dina waxtaan na waxtaan bi daal. baax na incha allah baax na. baax na baax na amin amin amin amin amin amin aja amin amin amin amin amin amin amin amin amin aja amin amin amiin amiin amiin Ndiaye sa tur ak ku ma. wallaay wallaay <laughs> wallaay ndeysaan wallaay nu lay fay sama kàddu. maa ngi koy nuyu bu baax. wallaay wallaay yaa Adja Fatou Ndiaye. Mhm, mhm. weste yaay waddu xaar. yaay waddu xaar wallaay. dëgg la ndeysaan. si appel bi ne dafa xat. loolu mhm, moo tax jaar. Eh, macha allah eh, Adja bi eh, àgg na. Eh, bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah. yal na yàlla nangu te yal na nu yàlla jéggal yaram. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf barakallah. ñaan bi nga doon joxe léegi wala sawfa yutiika fatardaa. waaw ak bu njëkk bi daf maa wa yanqalibu waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel. dinaa jéem a ñëw bu soobee yàlla géej baax na incha allah baax na baax na. baax na yaram yal na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel lépp. barakallah bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mara Cissé man la Rafi Diop. Diop soxna na fi Diop. alhamdulilah jërëjëf Diop. ñu ngi lay nuyu jërëjëf nu ngi lay fay yal na yàlla def la mag. amiin amiin amiin. yàlla yokk lay xéwal. amiin amiin amiin. Ndao Sall ah ndeysaan jërëjëf Diop. dëgg la am na ñu sa fay kontaan nañ trop ci émission bi. jërëjëf jërëjëf Diop. maa ngi nuyu tey ci bi Tata Aram Ndiaye di ko jaale tamit. wallaay ndeysaan mu ngi lay fay mu ngi lay fay. am na dinaa jël numéro bi pour kii nuyu association boobu. baax na incha allah baax na baax na. incha allah baax na baax na am na ñoom ñëpp ak Habibou Mbaye. wallaay wallaay soxna Diop jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla barkeel la. amiin amiin amiin yàlla def la mag. jërëjëf macha allah soxna Mati Diop. assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah sëñ Mara Cissé. sant bi. man la Mamour Ba xartu wala ne sëñ Mansour. ah ndeysaan seigne Mamour jërëjëf. ñu ngi lay ziar bu baax a baax baax. wallaay wallaay nu ngi lay fay jërëjëf. ñu ngi borom mu do la dëgeural amin amin seigne Mamour. yàlla barkeel la te yàlla gën a leeral xam-xam bi. amiin amiin amiin amiin amiin waaw barke alxuraan. wallaay wallaay ndeysaan bég nañ lool yow de saa su ne di la bégg lool. wallaay ndeysaan bég nañ si bég nañ si. waaw yàlla dogal na depuis depuis si wàllu itam ba léegi doon topp rek. wallaay ndeysaan wallaay yal yàlla barke lépp. maa ngi nii nii di waxtaan ak sama xale yi nii léegi. Mhm. ma ne la woon Carafil ba ma jëlee woon Géejawaay. Mhm. wallaay di ci bëgg lool lool macha allah. wallaay yal na yàlla barkeel ko. maa ngi ñaan yàlla yàlla barkeel la. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yàlla doon la sutura doon la kàttan ak wér. jërëjëf amiin amiin amiin liggéey bii nga sumb ko lool. amiin tudd ko màggat lool incha allahu taala ci kàttan. wallaay jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour. waaw maa ngi jaar nag sama wàllu woowu kanam. wallaay mu ngi lay fay sama kàddu sëñ Mansour. waaw <laughs> waaw keroog maa ngi déggante moom téléphone sax. wallaay jotale sax nuyoowam. wallaay wallaay dëgg la dëgg la dëgg la waaw li ma waxoon nga ko ni ko maa ngi ko doon nuyu. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la bég na lool si topp geeg kolere gi. jërëjëf jërëjëf bég nañ si lool jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour. jërëjëf yal na yàlla barkeel ko bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. nu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. yal na yàlla nangu te barkeel. jërëjëf yal na nu ko yàlla boole. di ziare yaa Aram Ndiaye. Mhm. bu ma déggee moom dama enregistré maa ngi ci biir. incha allah yaa ngi ak numéro am. maa ngi moom xam dañuy wootante téléphone sax. macha allah kon yeewul la. yal na yàlla barkeel. dafa am sa benn sët nag bu ma yor bu ma bu ma sonal daal. Mhm. xam ne ba juddoo ba léegi daal bët gisul. bët yi gis ah du gis mm-hmm. war ko defal opération depuis le 7 décembre fay naa léegi mënu mm-hmm, mm-hmm, léegi nag waxtaanoon naa ak yaa ak yaa Aram Ndiaye mu ne ma ba baax na incha boo suba 11h bu nu mënee jokkoo si kattanu yàlla. waaw baax na. baax na incha allah. yàlla yal na yàlla saafara jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkel ko bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Abaye ah, Mara Cissé. soxna mi ngi sant baax Thiandoum. am ko kay. Thiandoum. alhamdulilah ah, ba léegi. walaay walaay ndeysaan yal na yàlla ah, la yàlla fay. amiin amiin Thiandoum. ci alayhi wa Thiandoum barke maam Cheikh jërëjëf jërëjëf Thiandoum jërëjëf yàlla fay amin amin soxna ami kollo ay ngi lay fay sama kaddu bu baax sama xol sedd nag trop bi ma ñëwee woon foofu wallaay ndeysaan wallaay yaa ko moom yaa moom Thiandoum maa leen fay yàlla mi am seen fay yal leen yàlla amin amin soxna ami kollo amin amin wallaay wallaay nu ngi lay fay càndum càndum càndum jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkelu yàlla may la barke duha bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ziar yal na yàlla nangu te barkeel nu ngi sant nu ngi sant Adja alhamdulilah si dafa benn benn soppe rek la doon déglu rek fan yi ndeysaan

waaw am waa kañ baax na si kàttanu borom bi bu subaa na jokkoo si 11h. 11h kàttanu yàlla. soo wootee rek nga wax ma ne yaa woote woon si rajo bi. waaw soxna Khady Ndiaye laa. waaw nu seetal la say bunti sarax si kàttanu yàlla incha allah. baax na baax na soxna Khady. yàlla. yal yàlla barkeel jërëjëf. امين امين امين امين جاي baax na incha allah baax na baax na jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel ko te yàlla saafaram bismillah bis bismillah bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Habib Mbaye maa dellu si rabi waaw sëñ Habibou waaw maa ngi nii ñoom soxna Ami Kola Thiandoum ak Ramatoulaye Diop ak ñoom Mati Diop ak Alaaji Maodo yëpp wallaay nu ngi lay fay sama kaddu. Ah, Mouhamed Diop ñoom ñu leen nuyu di leen jaar. nu ngi lay fay sama kaddu. waaw yaa aram Ndiaye moom li muy sumbanoon dañuy ñaan yàlla barkeel ke rek. wallaay wallaay macha allah yéen nan mu am 1000 membres. amiin dina ko am incha allah ko sax si kattanu yàlla. dina am bu ñu mënul dinañ mhm, mhm, mhm, parce que yaa aram moom wax dëgg yàlla lu mu dugg rek lu baax la. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la lu baax rek lay dox. moom lay wax moom la xam. waaw man moom wax dëgg yàlla dama ko jàpp rek te yàlla sax. dëgg la dëgg la dëgg la te lépp nag yow. sama lépp daal ma ne ko doomu doomu xol la ni ni waxee doomu deret dafay am ak doomu xol man sama yaay bopp la ndax. walaay nee naa ko yow moom sama yaay bopp nga. wax dëgg yàlla ndeysaan dëgg la dëgg la. sama yaay ji ma jur nee naa ko yow yaay fi ma la teg falaate kii. walaay ndeysaan loolu loolu mbégte la mbégte la macha allah. li mu sumba noonu daal yàlla na yàlla na barkeel. walaay ndeysaan dina barkeel si barke Duha. dañuy jote ay jotaay yu bëree dina barkeel si barke Duha ba macha allah carte membre yi ma xam naa man suba sax incha ma xëyee naa ko ñu gën see waxtaan incha wallaay dëgg la dëgg la dëgg la mu ngi noonu seeni loxo. macha allah ñun membre lan si. waaw incha ma ko rek. mu waxtaan si taxawal seen bureau. incha allah. Ah, loolu ñoo ñaanal bu na Ahmed lu bëree. wallaay Seex Ahmed Tidiane Gadiaga mi ngi lay dégg waaw. ok jërëjëf jërëjëf sëñ Abibou. jërëjëf yal na yàlla barkeel ko sëñ Abibou Mbaye 33 889 83 32. moy yoon bi sen émission Wadduha si rajo municipal de Dakar quatre-vingt-quinze nu ngi nuyu sunu wëllëre Mouhamadou Mountakha bismillah. wa alaykum Mara wa rahmatullah Mouhamed Gueye Tëngéej. ah Gueye Gueye Gueye. Gueye Gueye maa la doon fàttaliku rek Gueye. waaw nga dëgg de Cissé ngi sant bu baax alhamdulilah nag soxna yi. ça va ñu ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah. yal na yàlla barkeel Gaye. alhamdulilah taal taal ñu na sa bi na mun naa na mun naa gisee bi nag. gëj ñu noo gisee waaw waaw foo ma ñëw fu soobee yàlla. yàlla ndeysaan wallaay wallaay yal na yàlla. mattali yal na yàlla mattali amiin yaa rabbal ñu bokk ñëpp wallaay ah, bu fekkee dugg na noonu dimbali baax ni mu man ma xam fan la gis nga nga sëñ Modou Gaye waaw waaw incha mu ngi lay dégg waaw bu ko fekk man ko man baax na incha allah loolu dana dana am solo macha allah alaaji Modou Gaye waaw waaw baax na baax na baax na Gaye Gaye yal na yàlla barkeel amiin yaa rabbal jërëjëf Gaye Gaye Gaye barakallah fik 33 889 83 32 mooy yoon bi seen émission Wadduha si RND rajo municipal de Dakar bismillah bismillah mbokk dafa mel ni dem na 33 889 mooy yoon bi sunu wëllëre Mouhamed Mountakha nu ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah bu soppi FM Cheikh Fall saw fa tabarakallah di sinu wëllëre ñu ngi koy nuyu bu baax di kai siyaare it fa tabarakallah 33 889 83 32 bismillah bismillah sen euh, yan yàlla nangu tabarkel yaa ngi ci jàmm baax alhamdulilah na ngi sant bu yaram la déglu ñoo ngi dégg àllarba bu ne ku baax nga la. jërëjëf yal na yàlla barkeel lépp mbokk boobu dafa mel ni dem na 33 889 83 mbokk bi xawal la wàññi rajo bi tuuti yaram. bisimilah mbokk bi wàññi rajo bi tuuti bisimilah. asalaamaaleykum wa Hadj Mara Cissé. Eh, sant bi yaram. Guèye. Guèye Guèye. ñoo ngi nangu tabarkel Guèye. di la wax ni ñëw naa fa kooru daaw. ah ndeysaan ndeysaan. am fu Cheikh jaar ak man. ndeysaan ndeysaan. yal nañu ko fekkee déwén. amiin amiin amiin na. jërëjëf Guèye. yal na yàlla waaw yéen ji ku dégg sa wax rek xam ne wax yéene la. jërëjëf jëf kay. kooku yore sa bande publicité bi. Mm-hmm. day dugg ci caaxaan du wax caaxaan lu mu wax lu ne nga xam na seetlu na ko bu wéree. wallaay Alaaji Fallou Cissé. dëgg la dëgg la. waaw ku xam àddina ko xam. Mm-hmm, mm-hmm, wax dëggoo dëggoo dëgg man surtout dëggu gi nag surtout dëgg. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. yéen nit ñi jàmm bëgg nit ñi yeewu. daa gën a fonk. Mhm, dëgg la ak am solo. dafa bëgg yow. wallaahi noonu wax dëgg yar beeg teggin gi lool ku la xamut it man wax dëgg mosuma la gis waaye ni may dégg sa baat daal ma dégg may jàpp rajo daal ba jëm ci yow du ma ko toxal. jërëjëf yaram. dama naan bisimilah mu woo la rek waaye xam nga xel mu fàtt waaye daal saa ma déggee rek jot géejoo wax ak yow. wax yar beeg teggin gi yal na yàlla suturaal bu baax a baax. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. àggali yéene yi. amiin amiin amiin yaram amiin. yéen jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf Yadam. jërëjëf jërëjëf rafetlu nañ dugg bi. yal na yàlla barkeel. nu yàgg fekkee ay koor te yàlla nangul nu. jërëjëf yal yàlla barkeel ko bismillah. waaleykum salaam wa ah Diop <laughs> Mohamed <laughs> sama goro na def. alhamdulilah. bisimilah. alhamdulilah na sant bu baax Mohamed Diop sama goro. <laughs> bu Wadduha Tëngéej. naka boutique bi. alhamdulilah yal na yàlla yokk fa barke si barke Wadduha ah macha allah am na solo si route nationale bi ba ku faram rek dina ko gis. waaw waaw waaw. station sel bi. baax na incha allah baax na baax na fàttali ñëpp ne lépp lu am si pharmacie Duha bu ñëwee foofu dana jàppandi incha allah si route nationale bi si yoonu Tëngéej bi. jërëjëf jërëjëf Diop. wallaay wallaay wallaay wallaay. ñëw ñëpp di indi jàngoro yàlla na yàlla saafara. amiin amiin amiin Diop amiin. man de ñu ngi gis ñu façon nit bu ne. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. waaw yàlla bu yàlla tax seen yaakaar. amiin amiin amiin wallaay ndeysaan surtout wallaay wallaay. ñun béy boo xam ne boo yàlla yi def saafara ñoom ñëpp dinañ cee ñu ngi dégg. wallaay wallaay wallaay wallaay. wallaay wallaay wallaay Diop. seen kàndam moom ñu wax lañu ay at yu mu béy ak seen collège. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay macha allah ñu yàlla dimbale yal na yàlla def leen mag. wallaay dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg la. wallaay wallaay wallaay. amin amin Diop amin ana kii yaay Khadija <laughs> yal na yàlla yokk ko wér <laughs> eh, ndeysaan ndeysaan <laughs> loolu yëw la macha allah lu sedd xol la Eh, ko macha allah nit bu la yaralee sa doom rek sa doom la loolu moom bég nañ si lool. dëgg la walaay ndeysaan. xol bi daa loolu yiw la. yàlla Amin Diop Amin Amin Diop. amin job, walay ndaysan wallaay wallaay loolu bég nañ ci loolu job. jërëjëf yal yalla yàlla barkel la mohammed job. mohammed job, bu tangej yalla yalla barkel ko bismillah bu de, dafa am ku nek ci yoon bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Alhamdulillah, mbay Niang ah seigne mbay nak wa kër gi sant yalla alhamdulillah ñaa alhamdulilah baax na. naka bi. ah sant yàlla rek ñu ngi sant bu baax de. yàlla na yokk bu baax. alhamdulilah yow yàlla nga yokk bu baax a baax. amiin amiin ñaa ngi. nañ trop da yàlla xam na ko. wallaay ndeysaan saa bu ma koy ubbi daal. Mhm. danaa bég lool. wallaay ndeysaan ma déggul la xamal ne maa ngi déglu émission bi. wallaay loolu mbégte la loolu mbégte la. émission bi moom du ma wax dëgg yàlla wallaay yal na yàlla barkeel lépp. waaw yooyu de yàlla na yàlla barkeel. amiin amiin amiin amiin amiin. parce que xam-xam bi ngay joxe moom. Mm-hmm. Euh, maanaam di ñàkk ki ñàkk di ñàkk di àndal rek jar na lu nekk. wallaay wallaay danoo yenn suñuy soppe ñëpp macha allah ak ñi nu soppul sax nuy mucc di yokk. ah kontaan lañ de man de pour man. <laughs> jërëjëf sëñ Mbaye. waaw pour man dañuy photoshop yàlla xam na ko wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf képp ku bëgg lu baax daal mhm, jërëjëf jërëjëf ñaax coordonnateur jërëjëf jërëjëf barakallah yal yàlla barkel la yal yàlla barkel jërëjëf sëñ ñaax doon ñi njëkk a woote si émission bi si RND bismillah allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah eh, sëñ maanaam man la Mamour maa ñëwaat ah sëñ Mamour waa waaw dama am waaju ma sopp lool mhm. def ko wëlëri lool bëgg a te bëgg am ci moom ay njëriñ. waaw bismillah. mooy suratu yaasin. ah eh, suratu yaasin. waaw waxoon naa la ci mais dama fekk ne fekk ba émission bi jeex mu jublu woon ak. Eh, baax na incha allah baax na baax na baax na baax na. maa ngi rek ñaan yàlla suñu borom defal la wér. jërëjëf sëñ Mamar baax allah baax na jërëjëf jërëjëf ku la xam rek yàlla na ko yàlla defal wér. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mamar jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax rek di bëgg yow saa su ne rek moo tax walaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf amin amin amin amin jërëjëf yàlla yàlla barkeel bég nañ si jokko bi eh, yàlla yàlla barkeel sorotu yaasin xam naa yàlla def na koor yi passé yëpp daanan joxe suukaru koor si sorotu yaasin bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa waa mbokk bi. Babacar Niakh. Eh, Niakh sëñ Babacar. ñu ngi leen di ziar. jërëjëf sëñ Babacar Niakh ngi sant bu baax alhamdulilah. tabarakallah. ana papa. ñu yàlla yokk ko wér. yàlla yàggal leen lu bari. yàlla barkeel la tamit. amiin yaa rabbi. maa ngi nuyu sama mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi. ndeysaan nu ngi lay fay sëñ Babacar. di nuyu Habib mbay premier auditeur. walaay ndeysaan walaay walaay. Mhm. Euh, daara bi nag ñu ngi leen di déglu de ñu ngi toog fii di déglu émission bi de. yal na yàlla barkeel lépp yal na yàlla barkeel lépp. amiin yal na yàlla barkeel ñaax. moo xaw la jàppandiku nag waaye bëggoon naa ñu jëm ci waax man nuyu mbokki auditeurs yi bu baax a baax. ndeysaan nu ngi lay fay sama kaddu. ñu ngi lay fay ñaan yàlla barkel la comme la ma la waxoon keroog rek ba nga indee sa waajur ne la macha allah <laughs> yaa ngi si yoon yoon boobu yàlla boo ko wàcc nag ya ñaax ñaax maa ngi baalu mbokki auditeurs yi nag di leen baal mm-hmm. di leen ñaanaan yàlla wallaay ñaax ya jërëjëf waay Baye jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah sëñ Babacar ñaax comme noonu ma ko waxee rek weeru koor yi jàll yëpp bismillah bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Cissé ñu ngi ziar maa ngi nuyu auditeurs sécuritaires yëpp. ñu ngi lay fay soxna Diop Diop. soxna Aram ñu ngi bokk ak moom kiis bi ñu ngi koy jaale. walaay ndeysaan walaay walaay Diop. incha allah dinaa ko woon. walaay walaay Diop woon waaye ñu ngi koy dégg. dëgg la dëgg la Diop dëgg la Diop. ñu ngi ñëpp ñu ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. ñaanal yàlla ñu ngi wér ak wérle. amiin soxna Rama. gudd fan lu nga yàggal. amiin amiin yàlla na ko yàlla boole Diop. yàlla ko am moom moom la ñu ñaan yàlla fay. jërëjëf jërëjëf Diop Diop. ngi nu ngi lay fay nu ngi lay fay sama kaddu. jërëjëf soxna Rama jërëjëf. jërëjëf soxna Ramatoulaye Diop doon fidèle si émission Wadduha bismillah Awa Cissé. sant bi Adja. Cissé Sow la Sow la. Sow Sow. Cissé. alhamdulilah Sow. ñu ngi rafetlu émission bi bu baax Cissé. jërëjëf Sow jërëjëf. maa ngi lay déglu tout bés bu nekk maa ngi lay déglu. jërëjëf yal na yàlla barke lépp. yal na yàlla bàyyi la suñu kanam. amiin amiin amiin amiin. yal na yàgg déglu émission bi kontaan nañu trop maa ngi dëkk jam ñaar. mos naa fa ñëw ak sama doom. ndeysaan Sow Sow. mos naa fa ñëw ñëw naa fa ñaar yoon ak sama doom. wallaay wallaay Sow tukki. dëgg la dëgg la jàppandiwul. sew. maa ngi dëkk jëm ñaajo. dëgg la sew séeréer numéro un. wallaay wallaay macha allah ndeysaan yal na yàlla yokk ko yaram ndeysaan ndeysaan. wallaay amin amin si ndeysaan sew. sew wallaay Adja Aram Ndiaye maa ko sopp. wallaay ndeysaan wallaay. dinaa jël baax na incha baax na incha baax na baax na. baax na yor numéro. mu taxaw jam ñaajo incha allah. na incha allah baax na. su ma toll maa ngi koy dëgg la saw saw maa ngi lay door a xam ne jam ñaajo. incha allah <laughs> waaw dëgg la saw ñëw naa fa ñaari yoon. dëgg la saw saw saw saw. saw baax na incha allah baax na. baax na yor nga bëgg naa mu taxaw jam ñaajo tamit. allah lépp ngi seen loxo <laughs> lépp ngi seen loxo saw. yor nga numéro Adja Aram. baax na baax baax na dina dinañ. koy wax balay émission bee jeex de. waaw balay bu jeex maa ngi déglu. après dinaa ko jël baax na baax na yéen yàlla ko woo dinaa jokkoo ak moom incha na incha allah baax na. ok Cissé jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Mhm. ko sunu yàlla dimbale comme ni ni ko defee woon weeru koor yi jàll yëpp incha allah weeru koor bu si nekk nu am si suukaru kor boo xam ne. spécial sur Yaasin lay doon ni nu ko defee 2013 2014 2015 si kàttanu yàlla bu nu yàlla kàttanalee danañ danañ ko Inshallah, Ramadan 2016 maa ngi ko yebal rek bu fekkee ne man nay dem si wadduha point org su demee si mission wadduha yi nga xamné 7 juillet 2014. spécial suratu yaasin lañ ko defoon fa la bu nu yàlla dimbale it sëñ Mamour si kattanu borom bi incha allah si weeru koor bi dana def émission boo xam ne spécial suratu yaasin lay doon nu séddale woon fa mbokk yi ay mbir yu bëree bëree bëri si suratu yaasin comme noonu mu ko waxee ndax yaasin mooy xolu alxuraan soo ko doon jëmmaleeg nit te xol mooy lépp fa tabarakallah yonent bi salallaahu alayhi wa sallam wax tamit ne yaasin loo sa ñaan rek yàlla dana la ko defal yaasin li ma quri a ah, dama ko yàgg di waxee nu war lool nuy xiirtal nit ñi si nuy bëgg yaasin xiirtal nit ñi si nu koy gëstu xiirtal leen si nu koy nafar ndax la sa nekk si solo dafa bëri fa tabarakallah sunu yàlla kàtt na la it si ndimbalam ni nu defee kitaabu wadduha deuxième édition kitaabu wadduha sunu yàlla kàttanale lépp si suratu yaasin la nu ko yéenee def mooy kitaabu doxa euh, deuxième édition sunu yàlla kàttanale eh, nga yàlla mën nay def fii ak at mu mën a yéwén eh, lépp si suratu yaasin si saar bu mag boobu la nu ko yéenee def kon sëñ Mamour nu ngi eh, lay yebal si wadduha point org soo fa demee boo demee si mission Wadduha so deme si 7 juillet 2014 fa tabarakallah da nga fa fek waxtan bo xamne lépp si suratu yasin lañu ko def sunu yàlla katna incha inshallah sunu deme ba ramadan comme nanu koy adaw won di koy def danan baxé suukaru koor boo xam ne lépp lépp lépp si suratu yaasin la nu ko yéene def kon alxaaji bu fekkee am na ku nekk si yoon bi nu jël ko kon nga euh, <coughs> bismillah bismillah bismillah dafa mel ni mbokk boobu dem na 33 889 83 32 bismillah mu mel ni ki mbokk boobu dem na kon alhaji ngam do nu yeketil tuti nu do ra ñewate gen sen emission الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك خيوال ديكتينا جوكتي على جي مودو سيسي نيري كو واخ مارا سيسي ميلين انديلون كارافيل خمسون قاف اجاب الرسول سمسول بلاد wat kitab wa wadduha tere bu bari njariñ tollu ci ñetti témèr ak fukk ak ñetti pass lolu de moy jeysul sun ña doon xeex badar amna ay ñaan ak nawafil ak lenn ci njariñal suratu yasin ak mboti ñeen fuk ak ñeenti tur yalla yi di asmaul husna. Amna nafila guy faj aajo amna mbotum irul aruna rasid dalay ar musal ci ay non ak seytaane amna dara in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

salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ah, sant bi Adja. Adja Fatou Ndiaye. Ndiaye ah, alhamdulillah Ndiaye ziar bu baax jërëjëf Ndiaye la ñaanal yàlla jërëjëf Ndiaye la yàggal sa taxawaay amin Ndiaye wala tay taysir amin amin amin amin amin Ndiaye amin aram nak ñu koy sant di ko gërëm wallahi Ndiaye wallahi pas pas la fa dëgg tek la Ndiaye Ndiaye ma koy ñaanal yàlla entreprise am boobu yàlla naka ko yàlla amin amin amin Ndiaye salatu ba amin amin amin amin amin auditeur yeeg auditrice yeeg yëpp Ndiaye jërëjëf ñëpp ngi lay fay sama kaddu ah, okay Cissé jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf naa ko sànq encore dëgg dëgg la ah, dëgg la nuyul ma ko bu baax dina ko dégg jërëjëf mi ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barke la jërëjëf Fatou bismillah wa rahmatullah eh, suñu ñu ngi lay jaar ñëw naa ci boutique boobu jël crafil bi. yal na yàlla barkeel ko. maa ngi bëggoon a jaar ci bërëb ba sax. waaye comme dama nekkoon ci yittey jàmbur ma jaaroon noonu rek jëlaale ko. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. waaw bis bu jàppandee bu soobee suñu borom dinaa fa ñëw. baax na incha allah baax na yal na yàlla barkeel ko. amiin yaa rabbal aalamiin ñu ngi lay sant bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di la ñaanal gudd fan. jërëjëf gis nañ gis nañ euh, ñu ñu ngi gis euh, lépp li ngay def ci ci rajo yi. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax a baax seen la. Ah, seen jërëjëf jërëjëf waaw boo fàttalikoo defe naa 2013. Mhm. yaa ngi waxoon yaa ngi doon wax yaa ngi doon maye juróom-ñaari ayatul kursi saa soo jullee. Mhm, mhm. waaw man ci boobu noonu laa njëkkoon woote waaye dafa nekkoon dafa tolloon ay jamono nag dama wër wër wër wër xamatuma woon fréquence ban la ci. waaw ci jamono boobu boobu laa la njëkkoon woo. dëgg la dëgg la. si 98 point 0. waaw 98 point 0 dëgg la dëgg la Siwel FM waaw. Mhm. <laughs> voilà mhm. ci boobu laa njëkkoon woote mooy bi nga doon joxe juróom-ñaari xayatul ko si. wallaay wallaay wallaay dëgg la dëgg la. waaw te te yaa ci doon wax ni euh, képp ku koy def nag te te woote wuloo fii am ba nga am ci ndigal. Mhm. waaw du man maa la ko jox. Mhm, mhm. dëgg la dëgg la boobu jour boobu laa njëkk a woote ci rajo bi. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw depuis boobu ba léegi nag maa ngi ci bëgg a topp ba ba ci laa ko amaat ci euh. ci ci euh, cent cent point huit bi. dëgg la dëgg la dëgg la si almadina. Mhm. Ah, waaw waaw dëgg la dëgg la. boobu ba léegi nag moom jàppandi gi moo amagul rek mais bëgg naa fa ñëw daal. incha allah yàlla na yomb te barkeel. amiin yaa rabbal yàlla barkeel karafil bi. amiin yaa rabbal alamin eh, jërëjëf. jërëjëf jërëjëf yaram jërëjëf. yàlla na yàlla fay la amiin amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf barakallah jërëjëf. bisimilah. bisimilah. waaw Daamara. waaw euh, doon def examen. waaw. dama mhm. moom nee admina. ah yàlla barkel ko. nee na la loolu mu ngi jërëjëf yann yàlla barkel ko. nee na daal xeebul wallaay wallaay Mbaye wallaay Mbaye Mbaye Mbaye yàlla barkel. amiin yàlla barkel ñiy ut ñëpp it fa tabarakallah jàppandal leen la ñuy sàkku si diplôme tam ànd ak barke. naa koy wax ne barke moom mooy gunge lépp bismillah bu dee dafa am si yoon bi lu mbir re, re, re rek bu fa barke génnee eh, macha allah man nga man na doon neen kon macha allah sunu jarbaati sunu rakki sunu jigeni, nga xam ne tam nu ngi ut mo xam concours lañu def mo xam exame bu mu meuna don rek nu ngi ñaan yalla jappandal leen ko te mu and ak barke fa tabarakallah di wax ne comme li li ci dess bareetul fatali ñepp yi taxi Wadduha jàppandi na pour ñi nga xam sen tank da fay dis ba jóg yomb leen si kàttanu yalla lepp lu nu wo ci pharmacie bi lepp lu mu meuna don su bismillah asalaamaaleykum. alaykum salam wa rahmatullah. indi ci maa ngi leen way yalla yalla nangu tabarkel. waaw man di dama dëkk Tëngéej dëgg sank ngay joxe numéro wa Tëngéej bi. waaw. mu xaw maa raw. Hmm, jëlal 77. waaw déedéet mën nga xaar ba ma toog ba jël benn portable. ba baax na baax na incha allah. léegi dama am sama benn doom boo xam ne day jàng waaye xel mi lu mu jàng bu jógee école faat. baax na kiis ma nga fa kiis am na tëngeej. ah am na foofu tëngeej. waaw am na fam. waaw léegi bu joxe numéro bi man comme que laaj naa ko laaj fi mu nekk. ma baax na incha allah baax na. baax na si si jërëjëf. baax na dinañ baamu numéro bi allah eh, comme noonu ma ko waxee bisimilah. bisimilah bisimilah. mbokk bi mbokk bi. Eh, dafa mel ni kooku rëcc na alxaaji eh, bu fekkee amul ku nekk ci yoon bi nga bisimilah nga téyandul nu téléphone bi dafa mel ni minute yi li si des bareetul fàttali ñëpp comme ni ko mbokk boobu waxee ñi dëkk Tëngéej eh, itteewoo lu mu mën a doon si pharmacie bi moo xam lay toj liggéey la moo xam lay faxas cat. moo xam bayre moo xam woyofal yaram moo xam kuy tooyalal garabu kuy tooyalal moo xam gàllaaju oto gàllaaju kër cuuraay lu si mën a doon rekk ak yi nu tuddul fa tabarakalaa sunu demee tëngéej janan jàppandi sa ñoom ñii dëkk bi bitti Dakar it dëkkee boori Mbuur sunu jokkoo dana leen jox sox numéro madame Nia fa tabarakallah ñi nga xam ne côté Mbour la dëkkee waaye ñiy soxla numéro Adja Aram bu Tëngéej sunu defee 77 262 36 28 77 262 36 28 bu nu ko moom fa tabarakallah dina leen gindi mën na leen a yebal si Mouhamed Diop. nga xam ne moo nekkee si rond bi si station sel bi mën na leen a yebalit fa mu nekk moom ajaaram Aram fa tabarakalaa kon koy soxla 77 262 36 28 ñi dëkkee Dakar it te itteewoo lu mu mën a doon si pharmacie bi si yooyu léegi te wax la ne daraaximu kiis bokk na si. nu yéene ko jaam yëpp it macha allah ndax la sa nekk si xéwal la sa nekkit si macha allah luy yombal xéwal moom Drahimul Kiis mu ngi si pharmacie bi ñi koy tewoo ñëpp te dëkkee Dakar biir Dakar man bu nu demee point 1 man nay jàppandi fa tabarakallah bu nu jaaree si 70 922 23

nga xam ne lu dul bésu àjjuma fa tabarak laa day ubbi lépp lu nu ittewoo si yi tudd ak leneen loo xam ne bi day ànd ak saafara sunu fa demee si mbaaxu yàlla danañ ko fay mën a am si boutique Wadduha en face en face lycée Seydina Limamou Laye bunt bi nga xam ne moo dendeek tali Pikine bi buntu lycée bi ñaari bunt la bi dendeek marché Njaareem ak bi dendeek tali Pikine bi tali Pikine bi mooy buntu gunas ñi jógee tali Roi Baudin bi station sel bi bu ñu yéegee montagne bi rek bunt bi ni njëkk jot sunu wàccee dinañ jàkkaarloo ak boutique Wadduha fa tabarakallah su de dara ja lañu jëm sunu fa demee dina leen woon sunu dëkkuwaay bu dee dafa am lu nu itteewoo sa boutique bay sunu fa demee dinañ ko fa am fa tabarakallah si yi nga xam ne bi yëpp nañ ko fi si luy safara tawat comme booy fal yaram si gàllaaju sàcc si gàllaaju kër gàllaaju oto kuy tooyal lal yëpp fa tabarak la dara ximu kiis ak yi nga xam ne tudduñ ko yëpp sunu demee si boutique Wadduha fa tabarak la dinañ mën a jàppandi information bu si nit bëgg a jiit su demee si Wadduha point org Wadduha point org 3W ngay def W A nga def ñaari D def I bépp xibaar bu nu bëgg am si Wadduha fa tabaarakala sunu fa demee dinañ ko dinañ ko am si wadduha point org ñi soxla numéro boutique bi moom it mën nañoo jël 76 310 95 60 76 310 95 60 fa si ñi nga xam ne bii noo soxla. numéro boutique Wadduha fa tabarakalaa su dee mbokk bi doon wax ak yéen te muy alxaaji Modou Cissé numéro jokkuwaayam 77 la 617 70 44 fa tabarakalaa mooy numéro Wadduha di ñaanal Adja Aram Ndiaye comme loolu nga xam ne xelaat na ko ak ñam si bokkal yeneen xalaat yëpp nu leen si ñaanal yàlla defal leen si ndam ndax ni ñu ko waxee Wadduha fa tabarakallah du lu alxaaji Modou moom Wadduha njaboot la njaboot la goo xam ne ñëpp yàlla da leen defar macha allah seen xol di góor kéem kéem kéem kàttan si la yàlla digal digle di moytu it kéem kàttan ay tereem di dimbalante it fa te looloo yéene bi yéene macha allah ñi nga xam ne ñëpp soppe lan si Wadduha nu am benn kuréel goo xam ne lépp lu nu song rek si mbaaxu yàlla ak ndimbalam ak barke Duha yàlla mën na def nu daan ko ndax noonu nu yéene yëpp macha allah booloog yéenente jàmm ak ndimbalu yàlla barke rek mënu si mën a dimbale ba lépp lépp lépp lépp mën a mat teyit bañ si bañ a utal sunu bopp frontière ne fii la yem ndax macha allah ni ko benn waxkat waxee ne sunu boroom boo ñàkkalee bopp boo ñàkkalee fayda sa bopp mu fekk fekk la si ba tax na ne na soo bàyyee xéewalu yàlla yépp wéetal yàlla da koy ñaan néegu ñax nee na su la koy nangul buy senn la lay jagleel ndax day xam ne amuloo bopp amuloo bopp ndax la fi si building ak ay étage ak i terrasse nga bàyyi yëpp yow sàkku néegu ñax nee na daf lay jox buy senn nax day xam ne amuloo bopp kon fa tabarak la fa tabarak la yéene it mu doon loo xam ne bii duñu ko utal ne fii la war a yem ñaan yàlla lépp loo xam ne mbooloo mën na koo am rek mbooloo booba bokk si fa tabarak la loolu lañ leen yéene wax na it dañ leen say gunge macha allah dañ leen say gunge waaye du lu nu du loo xam ne bi macha allah dana sa mën a jël benn benn grade ndax nan koy waxee rek eh, si ndogalu yàlla yàllaay dogal sunuy jot bariwul loolay waral mën na ne lu dul bésu aljuma sunu génnee rek danan tooñ ndax koo xam ne lu néew néew bët bu set da nga togg ak fanweeri nit loolu say jot du bari si yu bari fa tabarakallah looloy tax comme yàlla def na si ndogalam ñu ñëpp nu bokk yéene xalaat nu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen si ndam fa la yàlla defal nu ko si laay wax ndax si nu ngaa si biir fa la mu doon mbooloo moo xam ne lanu si yéene léppit it fa tabarakalaa day am képp koo xam ne yéene na sa bokk wala yéene na sa joxe xalaatam wala yéene na sa joxe yenn na sa nas dara fa tabaarakala si jokkoo ak Adja Aram delloo nañ leen lépp nu mën a taxawal bureau bi tuddee ko association moo xam lu nu ko tuddee fa tabaarakala bu Wadduha su taxawee rek danañ gën a gindi mbokk yëpp si lan lay dox ak nan la ñuy def tamit di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax alxaji Aliyun dafa am loo xam ne kenn amul njëgam mooy yëkk ak cofeel te ñun yàlla dogal na fépp fu ne rek. dañuy wettali lu nu fu nu toog tamit dañuy gunge wallaay yàlla xam na ne tey du cawarte lool waaye dama ne sañu ma toog ñetti mercredi te wettilikoon te ma ak samay auditeurs ak samay auditrices mooy tax toujours rek ak lu yaram sutante lu mu diis diis rek nu yéene ñëw àdduna dégg suñu kàddu nu wettali konte ak ñoom fa tabarakalaa ndax noonu ko waxee rek dafa am loo xam ne amul njëg nit su bàyyee lu bëri macha allah jox la temps te temps doon lu seer juróomi minute rek la ko jox jox na la lu bari rawatina ñaari waxtu di lay teewlu commencé sa ba ngay bëgg a tàmbali ba ba nga jeexal e, te wallaahi mu lu bëree bëree bëree bëri loo xam ne lépp lu addu si mission Wadduha tàmbali ba ba fin ba lenn du leen si rëcc loolu kon sunu. duñu man lu dul delloo leen njukkal duñu man lu dul ñaanal leen tamit ñaanal leen fa tabarakallah tey sàkku sa ñoom ñaanit ndax jullit bu yéeneem rafete si mbokk jullitam lépp lu ma ko ñaanal rek naam yaxin ne loola lu ma gis lay doon ndax yéen jaay tax te wallaahi yéene bu nu am si ñun yéene bu nu am si marasise Cissé bu ko gën a kawe fuuf la nu am sa ñoom dinaa ko wax su ma toogee yenn saa yi di koy jox di koy jox di koy jox ba mu yàgg mu ne ah man woon lii li nga ma jox dafa bari ma ne ko laaxi la ma yéene la des ma ko ëpp ndax dafa am loo xam ne bii moo dàqal lu nekk te mooy képp koo xam ne yàlla def na fa sa xel waxuma nga ñëw rek waaye yàlla def na fa sa xel sa yaakaar nan koy waxee ne képp ku xëyal nit képp ku fa xëy si rek da nga fanaanoo fanaanoo ba bàyyi nga ñëpp ne suba maaraasi si rek kon fanane nga ko ñaanal ndax yéene nga ko fa fekk fekk ko wér ak tal yéene ngeen boo demee toog ak moom boo waxee mu dégg fa loolu ñaan la kon yéene boobu nga xam ne moom la fa jaam yi ñëwee nan koy waxee toujours yal leen fa yàlla jiitu ba képp ku fay ñëw fa tabarakalaa nga fekk fa lu kawe sa njort di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne eh, fa tabarakalaa am na ndaje bu ma defoon si Lamp fal TV ñi nga xam ne jotuñ ko woon seetaan suba si 16h euh, alxames suba di le 12 si 16h05 fa tabaarakala sunu ko jàppee danañ ko mën a topp muy waxtaan boo xam ne defe naa ko ak Lamp Fall TV di sant di gërëmaat bu baax Alxaaji Alioune Ndion bi nga xam ne moom lañ jàkkaar looloon mu nekkal nu si technique bi. lépp lu si jub nag nu ngi koy sante yàlla lu si safaanu it jéggalu nan ko gannaaw ba nu ko jéggaloo borom bi jalla jalaaluhu di wax na sunu yéene toujours nii la rek àllarba bu nekk nu ñëw di wettali konte ak yéen si seen émission Wadduha loolu nekkoon tey seen émission di 11 mai 2016 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin nasaluka ya man huwa allahu alladi